ki mën a ñëw di déglu siira bi ngir jëlee ca donte euh, da caa jëlee benn jikko jikko yonte bi ñu wax ne yonte bi ko amul yërmande la nga dégg yërmande jooju nga tàmbali koo jëfandikoo yërmande jooju sa diggante lépp luy dund ci kaw suuf ndax am na benn xadis bu yonte bi sans wax nit tàbbi na aljanna ci sababu ab xaj nga xam yërmande day feeñ ci lépp lu jub wax ma wax ni guddi googu donte da ngaa déglu histoire yonent bi jàng ci benn jikko bi yërmande boobu mu wax sax loolu avantage ndax yonent bi dafa wax ni nit tàbbi na na ci sababu ab xaj ndax dafa mar ñëw takk aw botam ci eh, laxasaay yi mu yoroon dugal ko ci teen bi ba mu naanee ba noppi gis xaj buy mm, lekk bàq bi ngir ngir ngir mar mu xam ni xaj bii kat li ma gaaroon léegi moo ko gaar mu daal di takkaat ba bi duggaat ci biir ten bi génnee ndox jox ko mu naan suñu borom sant jëfam jooju ba tabal ko aljana léegi ñuy bàyyi xel jikko yonente bi yi ñuy jàngale mu yërmaande ñu ciy bàyyi xel yonente bi sans son njàmbaare gi nga xamante ni xam nañ ko ci moom njàmbaar yonente bi maanaam da daan feeñ ci du du xaar ab noonam ci barab mu di ko fekk saa bu ma saan dégg ñu ne ay noon ñu ngi barab sàngam di ko waajal moom day waaj fekk leen foo ba lu ñuy jóg loolu kon ab jullit dafa jàng dafa war a jànge njàmbaare googu ci yonent bi sax muy bul xaar fenn sam na foo ko dégg dama ngaa takk jóg ba ba ba woon ko ne naka noonu matale couleur yi yonent bi sax ci ni matale woon couleur yi nga xam ne kum seqal la cay manqué ci yow lay manqué waaye moom da koy matale sëkk loolu ba tey jullit bi ko war a bàyyi wala xel ci guddi gi juddu yonent bi sax jël jikko boobu. fo fonk rendez-vous loolu damay wax ni léegi li ñuy wax rendez-vous africain rendez-vous africain rendez-vous africain moom dëppoo ak sunna sunna mooy rendez-vous boo ko joxee fonk bu ñu la joxee rendez-vous nga fonk ko boo ko joxee fonk loolu ba tey ñu koy bàyyi xel ba loolu rek sax ci li ñu war a gën a mën a jàngee ci guddi gàmmu ci la bokk muy jikko yooyu ñuy jàngale ci yonent bi sallallahu nga xool ko di ko jéem a euh, appliquer ci sa bopp te njàng jàng képp la technique ndax saxaaba yi judduwaale wuñ ko yéen tamit dafa ñëw jàngale leen am na ñoo xam ne am nañ ñeent fukki at am ñoo xam ne fanweeri am ñoo xam ne amoon nañu lépp loolu waaye teewul dañ ko dund bu gàtt suñu borom saxaal ko ci seen i xol saxal ko ci seen i cër ba yonente bi mu fi jógee fu ñu taxaw rek wóotu ko fa wóotu gu wóor itam taxawaay boobu lañ ci war a taxaw ndax Sëriñ Tuubaa dañ daan wax ni saxaaba yi ñooy seeni i bàyyi ci dine bàyyi nag ku ne xam na jege gi muy jege ak doom ci ay lépp. melokaan ay nangam kon léegi lay tax ñu doon suñuy bàyyi rek ginnaaw bu mu la ko waxee ñu ñooy góorgóorlu pour doon seen i doom yi itam mati ko sëkk ci jikko yu rafet roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko bàyyee kenn nag ndax Serigne Touba kat yonente bi bàyyiwu koon kenn maanaam dafa ñëw jël ko muy léppam kon murit bi bu bàyyi yonente kenn kenn gënu ko yaay ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu ba tey dañ koy fàttalikuwaale ci gàmm ñun ñii nga xamante ne ñooy talibé Serigne Touba di xeñtu mbooram di séentu ndimbal suñu borom lu mu jaar la ci moom loolu ni ko mag ñi daan defe bim bim bim bim bim nekkee di gàmm ba suuxat ko ci xoli murid yi gannaawam la tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha xalifa bu fi ma sa ñëw rek taxawaay bu leer nga ci taxaw ku koy woote ak foo ko mën a woote sax ñoom dañuy yëkkati seen ndimbal seen alal joxe ko fa ngir participer ci guddi gi juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Saliou moom daanaka moom moom gone yu mujj yëpp moom lañ xam ci doomi Serigne Touba ndax moom lañ jamono teel waaye ni mu daan dundale gàmmu yaakaar naa kenn umpale wu ndax guddi gi day toog ba bët set wecc kuréel bu daaneel beneen jël kuréel bu daaneel beneen jël loolu ba jamono bi ñu nii jëmbat na ko ci xoli gone yi mu doon yar ba daanaka daara ju ci ne ci daara Xelcom yooyu gone ya fa nekkoon ba yeewi ko sax bu gàmmu jotee ñun ñëpp ñuy takkatoo dem gàmmoo ji foofa di ko dundal ci xeetu dundalin woowu nga xamante ne moom la ko si doon dundal lépp nag lu am solo la ba tey ñu xam ko te di ko leen ko fàttalente te di ci góorgóorlu suñu kéem kàttan te xam nag lam nuy indil ak lam nuy jariñ ñu ngi gën a góorgóorlu di ci gën a góorgóorlu toll waaye nag mbir mën nga koo yor ñàkk koo xam tax doo ci mën a jariñoo nañ ci war a jariñoo waaye nag fexe ba xam ko danañu dimbale ci ñu mën ko jariñoo dëgg-dëgg kon nañ fexe ba am ci ak xam di ko nuññutu di ko xeñtu te di ci gën a góorgóorlu suñu sàllu ko mas na fa wax ni guddi gàmm na nga yemale ko guddi ga ko jëkkoon ak ko mujjoon dara jël ko ci ab jullit loolu it nañ koy bàyyi xel jërëjëf rasuluna ahmadu sallallahu alayhi li banat bihi ulahu رسولنا أحمد صلى الله عليه لي بانت به أولاه بركة المختار لا تداها في أبد وسبق لا يداها